mbokk bu ñëw ñu ne ko doo ñëw léeg mu def ko ñaari fan ñetti fan tëj doon sama koñ di sànni ay grenade daj ma leen di jéggalu ñoom ñëpp di leen balu àq loolu mu koy def ci loo xam ne amul benn décision de justice nee na man saa ñu ma convoqué nit ñi dañuy génn di ma gunge waaye waaye Sénégal Macky Sall bi ñu ko fi convoqué jamono Ablaye Wade nit ñi gungewuñu ko woon muy daw sens interdit naan ma ngay dem uyu ji est-ce da koo dóoroon wala da koo tëjoon yéen ñëpp gis ngeen ni ñuy dalee sama kaw àdduna yëpp a gis ay alkaati yu yónni ñoo fekk ma sama biir oto toj oto bi jour boobu munoon nañ ma gaañ-gaañ bu métti ndax xottu butéel yi dal na sama kaw munoon a dugg sama bët munoon a dagg sama baat loolu lan moo ko gën a garaaw ci violation des droits nga ñëwaat ñi ànd ak man sax di ay attekat di ay avocat façon toroxal bu ne ñu leen koy teg ma leen di gërëm di leen sant seen taxawaay ndax bëri nañu macha allah te amu ci kenn ci ñoom koo xam ne fayeku na ma kenn bëgg dëgg moo tax ñu topp ñu ñu may jàppale waaye gis ngeen ni ñu def ci suñu tubaab boobu nga xam ne dafa ne cëpp ñu dugaat ko ci avion ne ko ñibbil suñu mbokk burkinabé boobu nga xam ne woo nañ ko di ko menacé parce que bu bés bu ñu bëggoon forcer procès bi dañ koy téye li avocat yëpp la def li avocat yëpp def la def mooy taper sur la table ne du fi amee gis ngeen li bëri ci samay avocat tey am nañu ay procédure ci baro bi tentative d'intimidation pour am sañ-sañu défendre Ousmane Sonko dans ce pays gis ngeen nit ñi nga xam ne sax dañ may faj natt bu bu ñu leen teg docteur yeeg sage-femme yeeg nangam nangam ku nekk woo nañ ko ci police ñii ñu defal leen bracelet électronique ba ci ndaw su jigéen soosu nga xam ne defe naa béninoise dañ ma wax nga xam ne deful dara lu ñëw naa asalaamaaleykum waaleykum salaam noo tudd noo sant ñaataat nga am est-ce que am nga ay antécédent jabet nangam nangam mu bind. ñu takkal ko bracelet électronique. lu kenn mësuta gis gis ngeen it suñuy militant niñ leen singale ci biir réew mi jamono jii may wax tembe am nañu ñetti téeméer am ak juróom fukk ak juróom ci ay militant Pastef yoo xam ne Macky Sall leen teg loxo ba pare ne ma dangay ñëw ñu négocier ci dara lu dul dëgg nag ku bind sax sa xalaat ci Facebook mu ñëw jàpp la ni ñuy gaawantoo ci dossier yi yow nee nga dem nga première instance le trent juge wax na li muy wax juge boobu d'accord maak atema ma profité wax ko d'accord maak atem d'abord agressé nañ ma feebar naa tëdd naa samay avocat ñëw andi ay certificat médicaux mu ne du ko jël loolu pour lan ñaareel bi def mooy tubaab di wax couper la poire en deux ah ñee de xam naa ni trois mois la ñu bëgg pour waa ji bañ a mën a nekk euh, candidat duma leen jox trois mois waaye nag il faut ma saxal leen dara man gëw mu ni noonu la ñuy attee sooy attee bu waa ji defee condamné ko bu deful bàyyi ko yàlla xam na ni defuma kon def condamnation naan deux cent millions depuis quand la ñu gis diffamation ñuy raaj nit deux cent millions fii Sénégal fan lañ ko mës a gisee ñoom ñu naan Pastef la nangam nangam man de xaw ko mosuma koo gis njort daan nag ni juge bu sérieux la peut-être dossier bi disoon ci pression yi mais bu ñu jàpp ni d'accord nañ ci jugement bi de gis nga man du ma ramener les choses à une question de éligibilité da nekk candidat ñu bëri bi ñu leen ne lii rek ne tant que nekk na candidat rek ñi naan man mun naa fay 200 millions déedéet fukki dërëm duma ko fay waaj yi bu yóbboo mu toog foofu di gént kon d'accord ma jugement bi et je le dis c'est pourquoi samay avocat dugal nañu li ñu war a dugal ñoom it ci àjjuma bi passé ñu ne premier dossier ba ñu ne enrôlé nañ ko pour le 16 ci loo xam ne am na ñoo xam ne depuis ñetti at ñeenti at ñi ngi chambre criminelle di xaar woowuñu leen ñu ne coûte que coûte tey foo ñu woo foo ñu woo Sonko parce que jàpp nañ ni dossiers yi nu mu gën a sakkane dina am benn boo xam ne nañ ci am li ñu bëgg bu nee nag Sénégal yi nangul nañu lu Macky Sall man li ma bëgg Sénégal la ko dal man li ma dal yépp bëgg Sénégal la amul lenn loo xam ne ci man la te yàlla xam na ni Sénégal jaral na ma lu ne waaye nag day am fu muy toll askanu Sénégal ñoom ci seen bopp ñoo war a xam ni bu la yàlla joree joxee dara nga am yaakaar ni lii mun na soppi sa moom ëllëg yow yaa ko war a njëkk a sàmmal sa bopp lu ko may rek dañuy wax Cheikh Anta di wax Thomas Sankara di wax keneen ak keneen nekk beneen bi nga xam ne am na te ma waxoon ko Sénégalais yi mooy le 16 bi ñu ma attaqué dama leen ne dañ ma doon essayé